Oustaz Omar Sall yaakaar naa ibaadu nga ibaadu mooy jaam yàlla parce que le mot ibaadu Oustaz buñ ko firee mooy jaam yàlla ne ibaadu nga bul mer du tendance du ay diine mooy jaamu yàlla donc Oustaz maa ngi lay ñaanal fa nga nekk itam yal na yàlla oyofal lépp nga daal di ci jóge ci jàmm ak salaam euh, Didi ñëwati nañ tey ci lu am solo xam nga Oustaz dafa amoon benn jamono mu wax ne mooy ñi lal malaana wasifa bi. amul élément wala ma expliqué ñii lal ma naan wasifa ba am la lam ca waxoon nangam sàngam xanaa ma ci jaari man kenn du ma woo de <laughs> yaa ngi dégg waaw kay nag léegi mais man sax li ma jaaxal ci laaj bi ak lii yëpp tamit parce que Modou affaire bi moom ba mu waxee lii dafa yàgg de ba mu waxee très sincèrement man li ma déglu woon dafa yàgg man bi ma jotaatee information dañ ko def garde à vue billaahi wallahi taalaay jaaxalam parce que moom dafaat génnatoon na def beneen sortie mu génne benn justification ba ne moom ay famem tiijaan lañ su ma juumul mu ngi ci internet bi ndax man télé bi daal maa ngi ñaan borom sona taala di du ma wax dégg naa foog naa yaakaar naa diw nee na wala est-ce que yal na ma yàlla musal ci catu làmmeñ yal na ma yàlla musal comme làmmeñ ay satu boobu loo wax du dëgg dañ koy vérifier dangaa sosal nit ñi yàlla ñu ci yàlla musal Didi paa bi bi mu génnee wax loolu tamit ca jamono ba ma ko njëkk a déggee giid naan na tamit mu def éclaircissement donc kon tey pourquoi euh, ñu toog ba tey bàyyi ma laaj Assane comme yow t'as pas mu toog ba tey ñu def ko si ñu def ko garde à vue te bi mu njëkkee wax génnaat ni joxe explication Assane naka nga déggee loolu ak naka nga jàngatee. waaw am na solo. oustaz euh, euh, dafa yëkkati ay kàddu daan ñii nga xamante ni ñu ngi lal am mbalaan wasifa wër ko naa ala ala def mi ba seen dën yi war a rëcc mu ne loolu biddaa la. mu ne yonent bi su ko masaan def menn moom wala boog fañ ko daan defee da ngay ñëw kii def ko dem keneen ñëw def ko dem. jamono yooyu looloo amoon jamono yonent bi ginnaaw bi nag si lañ créé lii te lii biddaa la léegi nag bi mu waxee loolu am na ak kuréelu tiijaan goo xamante ni ni mu lëkkale bari na ñoom ñu naqarlu ko bi ñu ko naqaree si lañ dem def ko pelante bi ñu ko defee pelante nag après bi mu yégée ni pelante ko si lañ leen wax ni leen man tudduma kenn te heureusement ay tuddut kenn bañ na ko ba dañ leen sànni mais li mu wax ku mu wax xam nga am wax joo xam ne boo ko waxee da nga xam fi léegi nag bi loolu amee moom fan yi wax dëgg yàlla mi ngi def ay discours yu tàng mm-hmm. di ko jëmale si gouvernement bi mm-hmm. bi loolu amee sax am na ñoo xam ne ñu ngi génne yeneen discours naan est-ce du lii est du lii mm-hmm. xam nga rek kenn ku nekk naan est-ce que wooyee wuñ ko lii est-ce wuñ ko ndax am na sax ñu dem ba naan est-ce que ñii affaire diine ñor na leen ñor googu mm-hmm. mais sans ginnaaw plainte la plainte kenn du ko xeebal kenn mm-hmm. kon ginnaaw woon nañ ko mi ngi si diggante yoon xam naa ne bàyyee guñ ko ndax waaye dégg guñ fi ñu ko defeeree mais en tout cas daal kuréel googu moom it nañ gën a dollee góorgóorlu ndax lii lu am solo ndax oustaz it yàgg naa génn di wax gàmm gii ñuy def bi daala màggal yi ñuy def bidaa la yooyu yëpp yàgg na koo wax wax dëgg ñuy defanteeg moom ak di tontonteeg moom waaye buñ jógee si kuréel gi ñu gën koo suude pour li ñuy wax yonent bi ñu mën di pelante ji ñooña ndax yonent bi wax dëgg yàlla lu ne lañ ko yekk si réew mi doo dégg ko wax alxuraan ji lu ne la si nit di wax ak lu ne la si nit di def ba si làmb yi mbëri da ngay gis sax kuy taxaw si kaw alxuraan kenn du wax kon nag bu ñu laalee sa tarixa nga jóg tarixa bi mi ngi nëkk si biir kii bi nañ ko gën a waat bu baax tarixa yi kii diine ji daal incha allah rabbi loolu lañ si doon wax euh, maam bi macha allah nañ ko gën a taxawwaat bu baax a baax euh, di di oustaz mi ngi garde à na ko fa yàlla génnal te leeral ko fa te aussi tam ñu gën ñu joxaat ay justification wax ci ban fànn lañ ko arrêté mhm. ndax ca la mu njëkk a wax la ndax ca leneen ndax ca leneen wax dëgg man information bu leer boobu amaguma ko bu fiable mhm. moo tax bi may def sama introduction éclaircissement parce que eh, defuma éclaircissement bu parce que xamaguma mhm. donc naka nga ko déggee ak naka nga jàngatee lan moo ci sa xalaat ndax gàndaa moom tamit dëgg fa nekk yàlla baam bi li ma ciy wax dama koy xam wax mooy comme xamaguñ lan moo tax ñu arrêté ko mm. nañ bàyyi yoon def ko mm-hmm. na yoon àtte daa mais li fi waxoon tamit ne ñuy def malaana wasafa bi ñooñu noonu ba tiijaani ne ñoom ñoo ko moom ba tiijaani tamit porté woon nañ plainte mhm. ne ñoom ñoo ko moom génnoon na benn instant à un moment donné def éclaircissement ne moom ay mbokkam ay tiijaan lañ mhm. loolu du yoon te ku nekk nag xam na ne euh, taalibe cheikh yi ñooy def malaana wasifa ñooy wasifa wala xadaratul jumaa def seen yu weex waaw le fait que mu wax ko rek nit ñi xam nañ ne carrément que tijaan la parce que ñoom ñoo fi def li nga xam mooy wasifa mhm. en général man dama naan ak lu mënti am même boo nekkul tijaan yaa xam murit nga topp mhm. la ñeen ñi topp maandu ci mhm. parce que affaire de euh, euh, tarixa yooyu dafa sew te am na nooy to waxee nit ki wala am na nooy ki day mel da nga koy vexé kon lépp looy mënti wax rek jëmale ko ci tarixa jàmbur na nga ko xool ci sa bopp yow que buñ la ko waxoon na ngay réagiré kon wax ji mën na rafet bañ a xas kenn bañ a vexé kenn tamit parce que dafa sensible baam bi dëgg ca déggandoo euh, sa mbokk taalibe la sa mbokk ustaas la sa nawle la tey mi ngi garde à vue yàlla na la ump ump ñu ñun ñëpp ump ñëpp ndax foofu moom du këru gor donte it jombul gor itam waaye yàlla nañ ci yàlla musal yàlla nañ ci dégg doy nan nga ko jàngatee bi ci njëkk bi li ma lay laaj moo di la mu waxoon ci wasifa bi xadara bi ñi koy def niñ koy defee ak tamit boo joxee sa xalaat am na sew sew parce que nee na loolu dafa xaraam donc bu fekkente ne donc ñiy wasifa allah allah googu noonu dafa xaraam yow mun nga ci indi benn éclaircissement après ndax bu fekkente loolu charia waxu ko wala charia dafa am fu mu bind ne loolu ñu dafa xaraam te euh, jàpp naa ne waa kër Baye Niass ak waa kër Alaaji Malick benn la ndax ñoo bokk weddu salaatu fatiha te mbir na dañuy lal euh, Tiwaawan dañuy lal donc loolu noonu ndax xaraam am na ci ci allah allah gu neex googu nga xam ne man daf may jooyloo day dundal sama xol bi parce que da ngay dund yàlla ji wallahi man damay yàkkamti guddi juma sax yàlla seede na ko tere laa toog di wax ngir loolu wala xadaratul juma oustaz ngay woo yàlla di dund yàlla di sàbbal yàlla ak ni yàlla neexee ak ñaata turu yàlla ku ko xam ñu ne téeméer yëpp sax sa yaram araama na safara ñi ne 99 lañ xam am na benn bu ñu xamul am na bu mu umb mais yéen mag ñu baax ñi wala nitu yàlla yi am nañ sirru bi ba xam nañ pourquoi loolu am fa araam foofu tam bëgg naa nga ñëw fi jërëjëf soxna Bam bi mhm. ci question bu am solo boobu mhm. moo wax ni laa yuminu ahadukum xatta yuhibba li aqihi maa yuhibba li nafsihi sayyiduna muhammad alayhi salaatu wasalaam nee na kenn ci ñun ñi toog sa ngëm wérul lu dul ni ni nga bëggee sa bopp yow yéene sa bopp lu baax jàppee sa bopp lu baax noonu ngay bëggee sa moroom kon ñun ñëpp dañoo war a bëggante te yàlla tax innamal mu'minuuna ixwatun loolu yàlla wax daa tiit ak ni fa aslihuur na ngeen rafetal bayna axawaykum seen diggante yi moo tax ab jullit du yàq moroomu jullitam ab jullit du saboté moroomu jullitam ab jullit baam bi du yëkkati kaddu gu ñaaw di ko jëme ci mbokkum jullitam ñaaw na wax ju ñaaw bayasan wax na ko kan la ko wax Suleymaan bayasan na na ko wóor nekkatul jullit wala boog imaanam matatul kon Aïssatou Diop Fall waxi mi wax doomi aadama lan la ko ci Seyda di xaar loolu bàyyi naa ko yow yaakaar naa su la déggee dina comprendre li nga ko tontu yow li nga jot a wax na sëkk waaw ah. ba ngi am na parce que nee naa Aïssatou lu mu bon bon sama mbokk waroon nga ma jël comme seedoo ma ci garaaw waaye fi may ñëw rek fi may ñëw rek baam bi mooy Oustaz Omar Sall yàlla na ko yàlla teggil li nga xam ni sëf nañ ko ci jamono ji ñu ko koy ñaanal man nag sama déggin xëy na ak déggin nit ñi bokkuñ moodu mhm. man daal ak lu mën a xew jàpp naa ni jullit la mhm. ak lu mën a xew it mhm. ñi ngi ñaan yàlla na lii bu mu sori yàlla na delluwaat ci këram ci jàmm ak salaam mais nag conseil fii lañ ko fekk dinaa ko conseiller nag moodu dafa am loo xam ni ku juddu fekk fi loo xam ni dafa mag sa pàppa mu rafet bàyyi ko fi waxaguma lu yàlla wax ak lu yonent bi wax loo xam ne daal judd nga fekk mu wéy mu mag sa way jur mhm. ñun la lii de ci kër gi la am mhm. waaye rik-rik bamba bàyyi ko fi gis nga problème mu allah geeg allah le problème qui se pose mooy mag ñi ñuy attaqué la ñu war a baax mhm. faut qu'on se la vérité ñu bañ ko raay raayal Sénégal gii ku mu neex ak ku mu naqari mënuloo fexe fexe ba nit ñi gëmuñu Alaaji Maalik jarul sonn de Moodu mille cinq cent bi muy am ak deux mille cinq siècle la daray diine amuloon ci réew mi daray diine réewum ceddo la woon waa Moodu suñu maam Cheikh Mat Bamba réew mi mën ngaa fexe ba kenn du fi tudd Serigne Touba maam Abdoulaye Niass mën ngaa fexe ba duñ ko tudd Baye Niass li mu def ci Nigéria ak Niger kenn xamul nu mu toll mais li ñu def ci wàllu diine am na fa mu tàmbalee amul fu mu yam mag ñi xas leen moom daa rafetul ak ku ko mën def Baye man Oustaz Omar Sall du ko conseillé loolu ànduma moom ci loolu lii ko dal yéenewuma ko je dis la vérité kenn gënumaa gëm Cheikh Ahmed Tidiane Chérif mooy sama sëriñ respecté naa ñëpp jox naa ñëpp cër mais yàlla moom ma sédd ma bokk ci njabootu Cheikh Bambi damay wérd salaatul fatih dama am sëriñ boo xam ni mooy sama wasiila diggante Cheikh na Tidiane Chérif nekk Tiwaawan jox ma wérdu salaatul fatiha ma jël ko bi su xare ba dak kon tiijaan laa piir nag piir ba moom laa waaye nag li ma war xam nga may lan sëriñ di nee na mboolem wàllu yi man naw naa leen ci yàlla bu baax gannaaw nag ba jaayante nag seexu tiijaan murid bi tam nangul ko loolu xaadir bi nangul ko loolu mais bam bi dafa am fu mu dugg gis nga alxuraan moo ñu sikkarloo moo ñu allah allah loo saar boo dem saar boo dem laa lu muy tekki mbokk yi dee leen tudd yàlla fazkuru mais pluriel la ñu jàng grammaire xam nañ li may wax kon tudd yàlla googu ñuy tudd yàlla dafa xat te bëgguma jël sa temps mais point par point mu doon léegi araam wala araam dafa dagan tudd yàlla bu araamee àdduna tukki di dëgg la Sénégal gii bu ñu tuddul yàlla àdduna la loolu erreur la bu mu def ne ko ko ñi ko bëgg di ay mbokkam mm. nañu ni ko erreur la mm. njuumte la bu mu ko defati fi mu nekk rek yàlla ko fa yàlla jóge donc l'erreur est humaine nga génn ak jàmm dégg li ñu wax après nga daal di koy tuub dinaa ñëwaat ci yow ci loolu bu may tëj sëñ Modou réew mi yëngu na tiit naa de xam nga yoon dafa nekk loo xam ne léegi dañ doon wax naan bandi yi délinquant yi ñoom doo ngay nekk détenu yi mais léegi tey oustaz yi imaam yi naay mi ñëpp a ngi ci kaso bi wala ñëpp ñu leen di garde à vue léegi problème bi la waaw mooy personne on est dans quel pays. personne n'est au-dessus de la loi. maanaam maanaam amul benn nit bu nekk ci kaw yoon. xam nga Oustaz Omar Sall bon maa ngi boole sama kàddu ci yëpp di ko masawu ci li ko dal. Mhm. waaye gis na nit da wax ba ngay xam looy wax. Mhm. man bi mu njëkkee wax wax bi avant muy jéggalu. Mhm. ne noo waxeewu ko noonu indi xam senegal Sénégal léegi da ngay ñëw saaga nit ñëpp nday ba pare xëy na maa ngi baalu ñëpp te saaga baa ngi ci internet bi ba léegi. kii gis saaga bi mën na gis bañ a gis baalu bi. bi mu ko wax dama ne. daje bi maanaam nit ñi ni ñu dajaloo moo aram mm-hmm. wala li ñuy tudd moo aram mm-hmm. oustaz araam <laughs> waaw xam nga ñaar benn da xam nga fu fu yàlla gërëmee nit ñi di daje di julli mm-hmm. yàlla war a mën a gërëm fu nit ñi daje di ko tudd wallaay wallaay benn araam xam nañu wax wasifa moom di mu andi du sax wasifa adaratu juma la gën a andi ndax allah allah boobu kenn du ko wax ci wasifa mi nag dañoo ko suñuy nawle ñun ñuy ay jullit am ay catholique fi nekk ak ñoo xam ne gëmuñu dara ñun ñëpp benn mbir moo ñu tënk muy constitution bi constitution boobu moo aaye man may nga gëm-gëmu oustaz daf ko aaye kon ku ko def yoon mi ngi sa kaw Euh, am na kooku sant jaxate bugguma tudd turam parce que turam dafa sell te moom sellu mag mu matadi mag mu ñàkk fayda mag mu irresponsable boo xam ne wax na fi Seydina Muhammad la ko saf te moom bu toon ak yonent ko waxoon te jommet ba muy doog moom ndeyam du ko indi ci àddina ndax kon baayam du takk yaayam ba muy nekk doom bañ koy tuddee tur bu sell boobu mu génn daggat yonent bi te ba léegi nii sëñ Modou kooku dara fekk ko ci ah. waaw xam nga problème bi la. waaw xam nga xam nga xam nga réew moom ni muy doxee moo xaw day doy waar man day su fekkoon nee nga ma ne porte naa ko plainte dara xewul kon ma xam ne kon naa maanaam mën nañ ko plainte que procureur mën na auto saisir mais dafa am bambi yoo xam ne châtiment la xam nga châtiment mhm. muy bëggalu yàlla bëggalu yàlla ku alku dé loolu yaa ci àgg <laughs> àgg ba ci loolu xam nga tey bu nga ne jullit nga ñu tuddee la yonent bi mhm, nga taxaw nga ne yonent bi gënul sa ndey gënul sa baay a wan daal maanaam yàlla moo la bëgg a yonent bi moom a wan maanaam yàlla moo la bëgg a ci askan bi yàlla moo la bëgg a weer loolu njumte la pour man gis nga nit ñi dañu war a comprendre lenn Oustaz xëy na li ma mën gis nga fii ñun suñu mag yi comme Oustaz ni leen tuddee mhm. dañoo andi tariqa mhm. tariqa sax fi lañ ko fekk waaye dañoo ñëw maanaam dooleel ko. gis nga lislaam force bi ñu am xam nga man damay wax ne ñun Sénégal xëy na nit ñi ëpp nañ ñu wax ëpp nañ ñu yaatuwaay ëpp nañu mais ñun li ñuy jëf ci diine li Serigne Cheikh waxoon. yàlla bu xeebee li ñu koy jaam fii Sénégal perte na. gis nga damay jël exemple gàmmu. ñun bi ñuy gàmmu suñu mam yi gàmmu cent ans. maanaam ñi nga wax ne ñoo féete benn boor bi naan biddaa la. ñooñu tey bu ñu demee bay gàmmu. kon ñun suñu maam yi rawee nañ leen ñoom cent ans. dëgg la. xam nga tey boo demee Màkka dañuy gàmmu léegi te pourtant dañuy wax gàmmu bidaa la te ñi koy wax ay jullit lañu kon xam nga ne réew mi ñun suñuy yoon yi suñu mag ñi tracel ay yoon yu jubla léegi nag yoon yooyu ñu koy diingat ñu xamul ne ñoom ci yoon sax lañ nekk ndax tarixa lu muy firi yoon mm. yow boo nee yaanaam tarixa yi yëpp reconnaître leen mm. kon yow am na beneen yoon boo teg mm. kon yow yi sa bopp yaa ngi sa tarixa tarixa te xamuloo ko léegi nag kon nit ñi nañu a rafetal xam nga mbirum diine daal ku nekk nañ bàyyi ak sa gëm ak sa te xam ne nit pas-pasam ak gëm-gëmam nit mënul wax a wax a wax wax ba rikki ko ba bamba ko loolu mënul nekk macha allah nit ku nekk nañ ko nangul tarixaam nangul ko gëm-gëmam nangul ko diineem nangul ko fa mu nekk ma ci nuyu waale feejoor yëpp te jowaal di nuyu sama mbokku catholique yëpp ñu macha allah réew mi kuy wax maandu rek jiital ci catholique kenn mus leen dégg ñu xiiroo wala ñu ŋaayoo wala ñuy respect manqué respect seeni i u seeni seen waaye ñun julli di waxuma murit nag ñii tiijaan GPS bi mais moom ñun jullit yi ñoo nekk di ŋàññante di xasante di yàqante di weerante di am njaay indi jóob ak ñi ma ko sañi wax itam ñàkk jom ñàkk rasu ñàkk personnalité ñàkk warma ñàkk kilifa woo bët orosu ba nga xam ne dañoo jël seen jom jaay ko ma joojo mu fore ko ay tama loolu ñoom la engagé